Mamadou Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf Luc Nicolaï borom samay combat léppi événement la léegi nag ma nga événement bu mu xamul fan la koy tëggee Sud Quotidien nañu Luc Nicolaï jàpp nañu ko mbirum blanchiment d'argent la ñu koy toppee observateur nañu promoteur ba def na kat appui Luc Nicolaï ma nga ca loxoy yoon la ko yóbbu ca loxoy yoon observateur nañu tey ma leen ko ubbi leen yéenekaay bi ca croisement Passy ba nekk ca Kaolack fa la ñu ko koje Luc Nicolaï dawalub 4 4 am ba yegsi gars yi ne ko kiir tim ne ko mën koy toppee moo bari bokk na ci wàllu trafic drogue bokk ci wàllu blanchiment d'argent la nañu Luc Nicolaï daanu te bu sàgganee tey ji danañu ko defeere observateur nañu ca kanamu procureur la jëm moom Luc Nicolaï Luc Nicolaï moomee populaire nañu ma nga cab garde à vue te nag yamul rekk ci Luc Nicolaï ndax ñaari douanier yi nga xam ne ñoo demoon ca bureau Bernal Tulli jamono ji leen di déglu ngir lawal enquête bi libération nañu tax ba enquête kat demee ca bureau bu Bernard Tulli lañ ko fekk fa ay bulletu cocaïne Walf Grand Place nañu Luc Nicolaï ma doon arrosé far nañu ko arrosé léegi sunu lamb moom xëy samp ab laaj moo di Luc Nicolaï bu ñu ko tegee loxo ne ko ci kaso bi menteng ana la lamb ji jëm direct info nañu weesul mbër yu torox ne cachet yañ doon wax naan des koy plafonné duñu ko plafonné ay cachet ci boppam la mbër dul gisati ñi yëngu ci wàllu lamb a keroog ba Abdoul Mbaye premier ministre bu Sénégal solew dàllam dem ca bustaan seeti fa Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne mooy xalifab Serigne Saliou Mbacké ca lañ fa doon waxtaane mbiri Béthio bokk na ca journal bi dañu doyen des six Mao Sémou Diouf ma nga woon ca ndajama ca la sang bi Serigne Cheikh Saliou sante Abdoul Mbaye ngir mbiri Béthio ñu lijjanti ko nu mu gën a gaawe mu xam fan la féete balay fitna di yokk ci réew bu Sénégal ki ñu dénk wàll justice koy defee ni ñu ko santaane ku ko mënul ñu wax ci yow populaire nañu moom Aminata Touré moomee cantaakon yaa ngi wax ci moom ndax nee nañu la bëgg gudd gàtt moo di ñu jële soxna si ca bopp ministère de la justice Souleymane Kane mi directeur affaires criminelles ak grâce nañu ci enquête yéene kay Cheikh jële bi ñu ko jële ci kaso bu Thiès andi ci Ndakaar loolee lépp ci yoon la tegu ma teg ci suuf coowal Luc Nicolaï ak coowal Béthio Thioune dugg ci ko def entraîneur adjoint wàññi ab leesam triple lees doomi Double Less di Balla Gaye 2 moo xëy ci xët mu njëkk sunu lamb Balla Gaye di fa xam le ne du bête noire am ñamu war a bëreel doomi Double Less dina moo leen di tànnal boppam bu dee Eumeu Sène nag mu ne promoteur bu ko seet si fay ko lu ko jar mu sëgg bëree ak Eumeu Balla Gaye ne fi nekk ni moo ngi sant yàlla ndax ñàkkul dara te it ragalul kenn kii di Eumeu Sène Balla Gaye 2 ne du sama classe ba ma ko weesoo na li yàggatul di a jënd xar ñoo ngay def lu ñu xamul li tax di li xew ca diwaanu Ndar observateur moo ñu ko nit nettali ubbi leen journal bi ay samba boy ay defkatu ñaawteef ñooy bàyyi ba guddi jot ñuy wër kër yi nga xam ne seeni boroom jënd nañu xar di waajal tabaski gi ñu wàcc ca kër yooyee di xar ya fees ko gàddu ndawal ga yóbbu bàyyi leen fa derub kese ak i béjjën bu nu ko lekkee Mamadou Mouhamed Ndiaye <laughs>